ñetti fan yëpp riir wi daw ci dëkk bi moo depp ci affaire lébu yi nga xam ne dañu amoon lu leen seqoon ak waa Kër Baye <coughs> mbir mi nag soriwul woon kuréel gi ñu am mu tudd CNL Maodo Ngom jiite ko toog naa ca junni fan ak ñetti téeméer ak juróomi fan mosuma gis kayit gu mu signé andil ñu ko ci contrat mënu mënuñu miim ne amul parce que gis nañ kayit yoo xam ne moo ko signé ak ndaw si ñu naan Mariama Niass ne da koy defaral ay kayiti baayam ca Nioro joxante bi nag toll na ci juróomi million kii di Sali Ndione kii di Souleymane Gueye mu waxanteeg ñoom ñu jël ko jox ko ci loxoom mu tëj ci am ci 3 décembre 2020 ba 2023 bi la ca xew ñu plainte ko tudd ci nag CNL ñu uyu ji ci gis ne moom def na loola man li ma war mooy sang CNL defaraat CNL bi taxawu CNL bi mu muccal CNL bi ma porte ko plainte ci defin bii nga xam ne am na parce que loxoom moo ci tax coo loolu nag ñiy jog dem wakaam ne dañuy utu tribunal di fa àttee kër ga ñu dem maa ko ëpp ka ñuy waxal Youssou Ndoye du ma moom bokk ñu làmb Youssou Ndoye xam ne cuun baay xaal yi ci tëngeej waa tëngeej xam nañ ko cuun baay xaal yi ñay demoon di wax seeni i ndomb óorul waaye man xam naa fi ma taxaw que maa ngi leen di déglu je prends à nag li may wax tëngeej ak Sénégal gépp fa ñu jëm maa ngi leen fay xaar jiitu fa di leen xaar que ba ñu ma ca dara man maa jël plainte bi portel ko sama bopp kenn bootuma kenn santaw ma ca dara ñu ut ku ñuy taxal tooñ nañu jàmbur yi ci loolu nag ma di leeral nit ñi que mbir mi am na yi fi jàmbur ku ko jël danga koy liggéey wala nga delloo ko alalam moo luubal moo tax mbir mi toll fii am na yenn yi ñëw si topp yu dul yii suñ sa yeggee nag bu kenn jaaxle ma bëgg nag mbir mi ñu tekk ci gëm yàlla noobal gi nga xam ne dañ koy oote dignitaire gi nga xam bi nga xam ne moom lébu yi am nañ ca yem nit day am fulla fayda am xam-xam am fit daal di doylu boo bëggul doylu nag lu nekk nga bëgg koo am te amoo métier bëgg a def loo neex mel nen ni que meloon ni di nga laal loo xëy war ko laal